jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi Serigne Massila Diop la ñu fekk si tey war a seq ak moom waxtaan bu ku ne xam na ne làmb ji di franc ak sokk fi mu toll nii ñenn ñi nee nañ làmb ji jàkkaarloo rayante rek moo ci des parce que wax yu ñaaw yi ci jib tamit bëri na mais tey bëgg nañoo xam kan mooy daan Ousmane Sonko ak état bi marché yi doo fi marché coow li lëmb na euh, dëkk bi tey yaakaar naa ndaw ñu ñu bëree bëree bëree bëri euh, ñi ngi faral di riposté danañ ci dugg ànd ci ay leeral danañ waxtaane njariñ danañ waxtaanee xam-xam mais laata loolu la ñu bàyyi sëriñ Massala Diop mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay siyaare. ñoo ngi lay fay alaaji dégg di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu waa àdduna di nuyu waa senegaal di ñaanal suñu way daw lii yàlla xare leen ajanay firdawsu képp ku tëdd ci lalu hôpital yal na saa boroom yàlla fëgg sa bopp képp ku am jafe-jafe yal na ko saa boroom yàlla teggi yal na saa boroom yàlla ray ci ak ragal yàlla aku njub ak dundelu lew te yàlla ray nu ci ñuy wax lu ñu gëm di nuyu waa tund kajoor bi nga xamante ni falaa dëkk mm-hmm. muy waa kër baakar kër njobba tayba njaay ba sanc mm-hmm. kër màlle mm-hmm. minnam mbëyeen ndóomóor daaf baal dëkkub sëñ aas ñoo ngi leen di siyaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu nag sama bunt ci sëriñ Touba. muy Serigne Mourtada Mbacke ibnu Cheikhul Khadim jàmbaari lislaam uh-huh. ñoo ngi siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax. suñu la euh, tey euh, combat Sokh ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Franc bokk na ci li ñu fi andi mais balaa boobu Ousmane Sonko tey ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri. ñi ngi naan moom ci boppam moo tax euh, ndaw ñi am fit moom ci boppam moo tax ndaw ñi lu leen neex def am ñu ne Sonko moo tax ndaw ñi xam ne Sénégal dëgg rek moom moo ci war a dox euh, ñaari réaction yi bokkul ñii jàpp nañ ni Sonko li muy def ci yoon la ko teg ñii jàpp ne li muy def teg ko ci yoon lan mooy sa xalaat ci doxalinu sunkoo ak marche yi doo fi marché dinaa manifestation. waaw dégg. man nag di wax dëgg yàlla affaire politique moom. Uh-huh. damay ruus di ci wax. lu lool. dafa yóbbaale aw turam. te ab jullit day moytoo wax lu mu gëmul. man sax wax dëgg yàlla léeg-léeg du ma ne du ma dugg ci internet léeg-léeg ma dugg ci internet bi. nga gis ci ay nit yuy wooye seen bopp ay sëriñ. lu xew ci jamono bi ñu génn bëgg caa wax. te nga encaissé xaalisub jàmbur. wax dëgg yàlla man moom yëfi politique. mënuma cee wax lu dul alquran ak sunna te may jaayante ak suñu boroom doomu aadama yi nga xam ne dañ may yaakaar di ma jox seen aw ñaq nekk bitim réew ak fii ci réew mi damay jaayante ci suñu boroom ba li ñu may jox ma di ko jox sama njaboot su ma faatoo ci biir bàmmeel duma ko layoo ak ñoom loolu daal boo ma ci laajee dinaa la ci wax waaye la ne lu dul loolu ci mbirum politique soo ma ci laajee dina defar ab leeral incha allahu rabbi. su ma la dégg naa ah, ku dëggu nga waaye dégg naa mbirum papier yi nga xamante ni ah, ñi nekk bitim réew dañ koy faral di jàmbat yàlla dogal na jëflante nga ci ay nit ñu bëree bari ba gis nañ ci seen bopp gis nañ ci résultat ba sax ñenn ñi ne nañ ah, ambassadeur papier lañ la waroon tuddee fii ci senegal waa loolu moom am na ci ku ma doon woo léegi fii mu ngi dëkk fii ci Fass Mbao bu ma neexee man na maa jaar ci turam. Mhm. jëflante naag nit ku ne du ci sama njàmbaar nag ci sama loxo la ko suñu boroom jaarale waaye dégg loolu lépp dëggu dafa wóor man damay am gàcce su ma toogee di wax pour àddina di ma dégg may wax ab sëriñ laa est-ce que sëriñ amati na boo xoolee ci TikTok bi. boo xoolee ci YouTube bi li may connecté wu nag bëriwul. ndax boo xoolee boo duggee ci sama PV li ma lay wax di ko xam. ñi may jëflante ni dañ ko xam dañ ma koy jàmbat. ma ni leen benn numéro laa yor. aw ma secrétaire. aw ma ku wuyul. ku ma woo man ngay jot. xaalis bu ma fay envoyé ci sama loxo bii lay jaar. awma ku may toogal ci sama buntu néeg. faj aajoy jaam ñi bu fekkee dëgg la sa jenn jëmm ji yàlla sàkk nga jàng xam nag sariya xam sunna jombale nga sa bopp ni doomi diw laa ak diw jomb na may lekk ñàqu doomi jàmbur joo nga xamante ni xawma nu ko ndeyam waajale mu ñëw ci àdduna dégg man de damay rus ni ab sëriñ laa sëriñ si affaire théâtre yi ñuy def ci internet bi waa yow boo demee ba xamal sam nawlem sëriñ dara waroo ko mën a sàngal sutura xanaa xamoo nit ku ci nekk rek am nga ayib ju nekk ci yow joo xam ne boo ko yàlla uññi woon nit ñi bu ñu rombee ñi la cim yàllaa ngi la koy nëbbal parce que li arab di wax nan tasir muddatan xasira diir bu gàtt lépp dina leer ci kanam suñu borom. séentu asamaan jërul buuxante. wax pour nit ñi gëm la jërul buuxante. ñi ni wooye seen bopp ay sëriñ. ñu war a ci dem liggéeyi war a na toll ci dem jàngi. defuñu ko ngar daajoo internet bi. barke Seydina Muhammad képp ku lekk alal nit ki nga teg ko ci sa nafsu baatin laay wax ak yow de billahi lazi laa ilaha illallah bala ngaa faatu dinga sonn ba àdduna xam ni sonn nga ñu bàyyi gor yi ñuy xas ci internet bi ndax ku xas gor dañ laa war a dóor juróom-ñaar fukki yar nañu nëbbalante ayib yi nawet baa ngi dërmal yàlla ji téye ndox mi lu tax yàlla li ne ci kaw soxlawu ci dara pour ñun la nañu raxas xol yi te dëggu te wóor te bàyyi bu ñu écran yi tiimee ñuy wax ay kàcc nit envoyé la sam nga ne pat naan ko damaa tëju lu ñuy tëju fu ñuy tëju tëjuwun fenn dañuy fenn rek tëjuwun fenn barke Seydina Mohamed tëjuwun fenn fu ñu tëjuwun fenn seen ay moroom xanaa xamoo sëriñ dafa war def attention parce que di nga ñaanal koo nga xam ni maîtrise ne xam-xam yépp yàlla na too ko mu dem bitim réew ngay jëflanteeg moom. ok c'est très attention. waaw. na foofu du caaxaan man daf maa dal ku nekk Brésil ma seetal ko ñu ñaan ñu jëflante lim xaatim yi ma ko yónnee yëpp mu ëbb ko ni ma li ma doon wër laa gis. barke salaatul fatiha mu ne ma benn xaatim bu ci dam woon dinaa la tiiñal. parce que da ngeen wax ba àdduna xam leen doomu aadama yi di jël seen xaalis di leen ko jox ma ne ko yal na la yàlla fay. waaw léegi nag yow bu dee dangay ngay photocopie. muy dàmm nga di jël di ko yónnee. nga fas ne saltee li nit ñiy def. dégg jàngoo bëgg a tar yàlla mayu ko kenn. ñoom genn wàll gi ciy wax gépp dañoo toll ci war a dem liggéey partuñu làggi wu ñu silmaxawun dara jotu leen. dañuy xool fi mu gën a yomb ñu ci dem di mbubboo nag ay turu sëriñ sëriñ diw man baatin da koy jàng téléphone neuf chiffres la boo xamul crédit koy jot lu tax ngay woote di jot boo yow naa maa fi daa xaseet maa fi def nàngam xamuñu dara ah. dara xamuñu ko man xam nga li nga may gis may génn di wax bariwul parce que personne buy dox ci kaw suuf duma la wax lu ma gëmul duma la wax lu ma dul def man nee naa la ceci libre réew mu ma neex dem sama benn numéro bii ma yor ndekee jeeg moom laa mos yor dara du tax ma changé ko parce que nëbbuwuma làqutuwuma wutuma bëkk néeg wutuma dara fu may jëm may taal sama oto bii ma yàlla jagleel ma dem yóbbu li may dem yóbbu lu ñëw toog sama kër nekk ci samay liggéey nit jox la nga ne ko damay dugg xalwa nit jox la nga ne ko dama lay génneel sarax léegi ñu dem ba xàmmeetun sëriñ bi ak trian bi léegi nag yow dañuy dem ba nit ne ci tele yi sax toog di xas sëriñ si di leen tuutal man gis naa fu fu toog ni day seet ci télé yi ah. barke salaatul fatiha billaahi wal kitaabi nit nit naan ko sa sa sa tabi'a lii la eh. barke salaatul fatiha fi ma toog ki ni wax damaa jël turam adat ko xool mu nekk maa iyu. mu nekk lan. maa iyu. ki waaw eh. ki muy wax mu ni ko xawaa iyu la fekk ko maa iyu la. mu ni ko ngelaw fekk ndox maanaam yooyu nañ koy moytu ndax heure bu la écran yi tiimee ki jàng ba yee ay këyitam deful sëriñ mi ngi fi. te li wax ji bari bari bari bari bari bari. ñun ñun sëriñ Touba seede na ne xam na ni ñun bàkkuwuñu ñun dañoo jàngi woon ci école sëriñ seex mbàkke yu njëkk ya gaynde ma ñun celan lan jàngi woon jóge fa dem jàng ibaadu rahmaan jóge fa peegu li ñuy peegu dem jàngi xam-xam ñun ay arabisan yu jàng baatin lañu école sëriñ Mourtala yi la ñu mujje kon bu ñu gisee ci yëf yi ku ciy def loo nga xamante ne lu ñu xamul la man daf may yéem ñu naan dañuy seet dañuy def nangam alaaji dégg daaj seet mooy li gën jafe ci àdduna nañu bàyyi seetu prétexte yi ak tëdd ba mu neex la nga ne damay listixaar man ñi may listixaaral ñi ngi may dégg li may gis laa leen di wax ku ci am looy laam-laamee jëlal audio yi may lay listixaarale nga tas ko ci réew àdduna bi man ragaluma lu mel noonu sa bas xamul tax ay gor buñ la juree juddu. dëkk ca kaw ga. nga xëy ñëw ndakaaru uh-huh. dégg yàkkamti wërsëg baaxul. da lay dugal ci loo nga xamante ni bu ma xamul la. Uh-huh. gis nga téléphone bii ni mu nekkee baatin ak baatin lu am la. yam ñaan amul ñaan ñaana am. xam nga xaatim day damm. Uh-huh. xaatim day jub. xaatim dañ koy nëbbu xaatim day am kasra. waa léegi sëriñ bi xamul loolu ku muy ñaanal mu nangu. dañuy photocopier rek. waaye tamit allah ji dégg man bu ñu dajale wan buñ ñu dajale woon ñu def examen. Sénégal tappale dafay jeex. te loolu moo war a mhm. ku ci nekk toog sa saal di waat naan mën a diw mën a diw. billaahi wal bi bu ñu woowan toog. man Massyla maa ko wax. Mhm. bu ñu woowan toog ci ab saal ñu dajale. nëbbu téere yépp kaye biig ñu toog ah la xam ki jàng ak ki jàngul ñu wax yow tamit léeg-léeg nga gis fi sëriñ sax mooy dagg benn mu bu xam nga dégg xam-xam kenn du ko weer baatin lu nëbbu la baatin dafa nëbbu mais dégg nga doomi jàmbur day nekk bitim réew jox la alalam mais dégg koo ku mu leerul ni di nga fanaan ak fi dëkk bi toll nga ni nga nga jël alal jooju def ko ci sa poos ni da nga koy jënde oto wala da nga koy lekkee lu neex te yàlla du la te gàllankoor kooku danga xam lan la jànkonteel ak bën heure la yeew nañu bàyyi caaxaan yi te ñu bari nag eh, ñu bari sëriñ su bari ñu ngi daanu ci problème mu sama tabia ah way waaw c'est parce que ndaw si ma mujj woo France démb bi ma xooloo nee na wax yu bari dañ ko ko wax mu jaxase xelem. ñaan ndox mi noonu la ngelaw la. waaw am na ko sax dañ ne ko moom aw doj la xam nga doj tamit loolu tamit lu danger la. si xam nga dégg. man li ma la wax personnellement man damay am gàcce ni ab sëriñ la wala ñaankatu yàlla laa. dem daal di fortaatu sa ñetti aay rek daal di ñëw toog mënoo dagg xaatim mënuwu xaar listixaar xaar gu wér da ngay nelaw ba sa tànk bii te bépp biir boo nga xamante ne da ngay lekk loo nga xamante léwul mënoo ñaan la yàlla lu yàllay def billaahi wal kitaabi gis naa sëriñ boobu dafa jàll boo ko nee sa tabax daan la sa tabax faramaarin la bu loolu doy waar. billaahi wal ñooñ ñëpp seenu mujj du rafet. caaxaan du ànd ak dëgg. dégg alxuraan yàlla ji képp ku ko sellalul di ci wut ay prétexte wala di ci wut lu neex nit ki ngir noo mën a jële seen ala seet yombul nañ bàyyi li ñuy def ci tiktok yeeg yi am doxul noo doxul parce que amul tax buzz mm-hmm. du yàgg xam nga luy bàyyi rek ñaankat ngay ñaan muy nangu mooy résultat bi mm-hmm. mais ci des ay prétexte la ndaw bu waree toll ci liggéey liggéeyiwul yow amagoo juróom fukki at toog nga mel ni ko am juróom benn fukki at wala mel ni ko am juróom ñaar fukki at wax tamit nag euh, sëñ bi nañu ànd ak ragal yàlla te moytandiku alali jàmbur yi ñuy lekk mm-hmm. képp ku la jox alalam liggéeyal jox ko baatinum nangu bi suñ borom la waaye ku la jox gisul déggul nga dellu dem toog mam fàtte bis day ñëw mu ni cëpp Sénégal wër la ba fekk la fi nga nekk toroxal la man nag cadre seet moom daa ko jël dem teg ko ne le moom mbiru kayit yooyu ita France Italie moom bu leen neexee ba ci Angleterre man buñ ma wooyee ambassadeur nangu naa ndax yow dem nga France la xew xam nga ko man yàlla suñu borom suturaal na ma. lim ma suturaale mooy képp koo nga xam ne nag maa jox saw ñàkk la may njëkk a man di def bind sa tur bind sa tur yaay bind jour bi nga xamante ne bu nu te yàlla yóbboo ak bakkan sa liggéey war naa pare maa ngi toog liggéeyal sama bopp aw ma ku may bindal aw ma ku may dagal xaatim mhm. ndax xaatim dafa sacré. lépp yaa ko def lépp maa ko def sama bopp. Mhm. dégg mhm. jàng dafa wóor. ñàkk jàng ak ñàkk xam yàlla dëgg-dëgg parce que yàlla moo ni faare foo xam la in temps bu doo ilam yaare foo kay fa temps doo ni lu jiitu nga may xam jàmm lu jiitu nga may jaamu xam yooyu nag bu fekkentee ne yow maîtriser woo ci benn mënuwaa na ko ragal yàlla te caaxaan baaxul dégg gone yi ne ci internet bi di woy seen bopp ay sëriñ genn wàll gi nañ dem jàngi hmm. bëreet arrivé ci suuf. ndax àq du àq du du du leble. tey day neex de waaye nga am cinquante ans jëm soixante ans commencé dund musiba. li nga lekkan est-ce que lew na oto yi rafet na trop kër yi rafet na dara yi rafet na waaye xam na lu ko gën a wóor mooy nga góor ci ngor doylu ragal yàlla te xam ni yàllaay maye. yàllaay xañe yàkkamti wërsëg dalay indil ci beneen buntu boo nga xamante ni loo xamul la man dégg am na ci ñoo nga xam ne li ñuy def naan nangam day xew diw day dee diw day dee am na loo nga xamante ni ku ko yàllaay xamal doo toog di ko wax xaw ma dee nga xaw ma xaw ma dee ak dee ak juddu yàlla dénku ko kenn boppam la ko téyel nañ def attention ci loolu yow mi koy wax xamoo ban bis ngay faatu ku la ci mën a mbax ni la suuf sii laay faatoo ci ñi koy wax nañ la ko wax mën nañ laa wax ban heure lañ nelaw bii mën nañ laa wax ban heure lañ yeewoo ku loolu ump nag am na loo nga xamante ni da nga cey maandu da nga yem ci sa ñaan yàlla hmm. nañu bàyyi musiciens yi ci musiciens yi nañu bàyyi tëggkatu sabar yi ci tëggkatu sabar yi nañu bàyyi jàngkat yi ci ci jàngkat yi jàng ñaankat yi nañuy dem ci ñaankat yi te ba lu bokkul li ñuy indi ngir aw tur ngir dara jaa ko waaye wax ba ñu gëm la nga jëf ba ñu gëm la moo ko gën a wër dégg am na joo nga xamante ni doxul. dëgg la. ba ngay xool léeg-léeg mu ni man dama ni ma seet moom dam xam nga. def ko ay kii di ko dugal ci TikTok bi am na yoo xam te ni yow boo toog di def da war a xam gàcce. am ñoom moom wéruñ moom ay dof lañ. yëfi dof rek la ñuy def ak di théâtre ci kii yi. Ah, too da léeg da ngay gis ku ci wax sax ba jooy man damay xool ba jàkk ma ne waaw ñun ci ban réew lañ nekk waa est-ce que lii jàmm est-ce que lii toogati sax naan man na léegi da ngay gis gone bu ndaw toog fële di la weddi. te nga xam ni baatin péer dafa xam. Ah. barke Seydina Mohamed. ñun li mu saf dañ li mu saf dañ ko màcc téye ko xamal ko suñu bopp billaay wal kitaab bi man lu ma la wax ci seet du dañ ak koo mën a doon xam nga ñoom dañuy génn naan la diw at mi na man kaamiru alquran bii man buñ la ci seetalee dëgg xaqiqeen man lañ laa xam ne la bis sàngam sax da ngay faatu te du dañ alxuraan wax mais loolu bala nga koy mën a xam li ñuy wax grammaire fi'lu maadi fi'lu mudaari fi'lu amri da danga koy maîtriser ci sa bopp bi xam xaatim. yow xamoo xaatim bu damm xamoo xaatim bu ñu ne bu ngay toog nga damay xam nangam ak nangam yow tur tur nit sax mënoo ko adat. ma ne kii seetal nit ñi naan ko sa tabian faramaaren la sëriñ boobu dinaa ba ñii dafa sorente. xam nga ma wax la mbir. faramaare lu ko fi indi. Mhm. aw aw aw kii bu ñu indi la. maanaam. Euh, turu ñu indi la. bokkul ci ñaan. musicien bi nañ ko bàyyi mu dem musique yi. ngir jëmi yonent bi am ñaankat na yem ci wàllu ñaanam. alxuraan nga dem jàngoon muy dëgg. su fekkee nag jàngu alxuraan da ngay tappale lu ñëw rek ñu gis la ci. dégg nit ñi dafa ñu de. ñi ni jox seen xaalis jamono bi ñu toll ak ñi ko du jox ak ñu leen a xam. dofu ñu junne jàpp leen. tappalekat yeeg sàcc gu silwise geeg ñépp xam nañ ko dan ne pat ba ren di déwén sëñ la loo mën a wax nit ñi ci combat Franc ak Sokh lan nga mën a tekki loxo sénégalais yi que xam nañ la ci làmb euh, alaaji dégg Franc Sokh làmb bu naqaree ni ko tubaab di wax décortiquer la ku jug làmb ju diis la <laughs> te Sénégal dafa naqare waxtaane ci làmb man maay làmb ah. billaahi wal bi xam nga ñu bari dañ doon wax sëriñ su bari ci combat Modou Lo bi dañoo fen wala fenuñu ah, ñu bari na trop tàkkusaan nga nii lay demee nii lay demee ma ni leen gisaguma fu muy amee ah, te ba fii gisaguma fu muy amee produit nga ko barke Seydina Mohamed gisama guma fu muy amee boo ko gisee rek da nga ñu woo billaahi gisama guma fu muy amee te bu ma gisee fu muy amee man naa la koo wax. dégg euh, jàng daa wóor tàppale. dëgg la. ku daanu ci ñoom ñaar di nga sonn. waaw. waaw mais làmb jooju ginnaaw awma ci mbër am na ci nga xam ne pour ma leeral ko ci. dama ciy wax mais pour ma leer ko ci dafay xaw a jafe. Mhm. ndax c'est le meilleur qui gagne. c'est le meilleur qui waaw. Franc doy waar a ngoog. na doole waaw am na doole waaye Sokh ma gis néewul doole te tëlewul waaye François Émilie dafa mën a bëri. dafa mën a bëri. waaw dafa mën a bëri ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da am loo bëgg da ngaa am lu la yitteel ki daanu laa yërëm. 100 pour cent Pikine ànd nañ Ama Baldé Modou Lo Eumeu Sène nekk ci ginnaaw Sokh. loolu moo war am xam nga loolu moo war a am. àdduna amul solo. nit ñi nañuy xool yu baax yi ñu di ko wax te bay yu bon yi ñuy génne di ko wax. gis nga lépp la waaye man di wax te gëmoo dee bis day ñëw ñu takk say tànk sànc say nopp roof la ci biir bàmmeel lépp loo doon dund ci safaan di nga ko réccu. est-ce que pour cent bi tamit dëgg la au fond. non buñ ko waxee dëgg la. Sénégal dafa mën a jubiler. non bu dee ñoom kese ñu bàyyi leen seen biir amuñu problème xam nga li gën a jafe ci àdduna ki xamagul mais ki wax ba ki def ay preuve ci àdduna bañ xam ko kooku coonaam mënati naa bañ a euh, sonn ci àdduna. mais yaakaar ne Sokh euh, Franc néewul ay mbokk parce que Franc Modou Lo rek lañ gis muy ànd ak moom. waaw mais Modou Lo mooy le roi des arènes numéro un. kon Kabio Ngaka benn nante mën na leen a ëpp doole. non xam nga Modou mooy le roi des arènes. loolu suñu borom dogal. mooy numéro un. koy jël kenn nanguwul ni moo koy jël. maa taxaw stade Iba Mar Diop man leen Modou Lo dina ko dóor mu daanu combat bi 7 minutes lay déparé dégg sëriñ siy wax ñii dañoo man di wax di wax rek. man Modou bu ma ko bëgg a gis suba du ma ko laaj audience. Modou du ànd ak waaye waaye du ànd ak nit ci ay caaxaan parce que fi muy teg tànkam da koo xam. waaye gëj naa ñëw ci làmb ci làmb xam nga lan moo xew loolu moom li arab di wax xurriya boppam la maanaam dund boppam la. lépp lu am nag làmb ko ko may. nit nag lépp li nga xamante ni làmb moo la ko may. nga di ko bàyyi xel di ko gëstu am na ci solo. mais dinaa la wax benn mbir man maay làmb. si la yaay làmb. làmb. kon làmb jooju diggante Sokh ak Franc jàpp nga ne euh, sarax ba tey am na lu mu ci mën a joué. non ka topp sarax yu mujj ya mooy daan. maa ko fii. kàccay topp sarax yu topp sarax yu mujj ya bu ci benn gàllankoor amul mooy xam ndam. gisoo ne dóor mu daan war na faa mën bu ma ko gisee duma ko wax. ndax masila masilam Sénégal la. ñëpp dañu may safoo. fas yéene wu wax loo nga xamante ni day blessé kenn ndax leer na la leer suñu borom ni li may wax nii su ngeen ko génne suba ma wax kii daan. am na ñoo nga xam ne mën nañoo faral mel mbërim waaye duñ dem stade parce que xam nañ li may wax day xam. waaw ah, waaw moo tax am na ci loo nga xam ni duma ko def yow dégg. man nit ñi toog naan am na lu may dikkal ak am na lu may gane si. yooyu problème la. ñun suñu ay at mi ngi bëgg a bari. man ki ma jàngal baatin dëgg. sëriñ Touba seexal na ko ñetti yoon mi ngi dëkk Ndukura. billaahi wal kitaabi mbind mi sëriñ Touba bindan ci loxoom. ba bi muy dem Barzak mu ngi ci loxoom bi farul fi sëriñ Touba tegan loxoom bi ci boppam bi. ba tey amul karaw mooy nii may waxee man di ko waxe ni may jëflanteeg doomu aadama yi ma di ko jëflante ak ñoom. Euh, Franc Sokh nag ah làmb ju doy waar la. Mhm. Mhm. làmb ju doy waar la ju doy waar la. bu ma la doon ne favori kenn nga jàpp ne moo xaw a jiitu 1 pour cent wala ma wax ni kenn mooy favori ndax bu ma waxee ni kenn mooy favori rek ñi am xel ñi dañuy dañuy xam fi ma jëm. Mhm. kon looy tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. di wax askan wi. ñiy wooyee seen bopp ay sëriñ. ay doomi jàmbur yu nekk bitim réew. ak nekk fii ci réew mi ñoo leen di jox seen alal ñu leen juddu. am na ci ñu leen di jox seen alal ñoo nga xam ne ñoo leen sut àllu ba. dañu ne pattoog nañ bàyyi fii laa jànge lii laa def nii laa mel te fekk na meloo ko. alxuraan dafa wax ni la ngeen di digle yéen ñi koy digle na fekk ngeen nekk ca. te fa zakiru fa inna sikra tanfaul muminuun ñun jàngkat yi lu ñu représenté ci kaw suuf ñoo fi nekkal yàlla nguurug yàlla gi dañ cee war a wax mais tey yu ñaaw yi ñun jàngkat yi la weerante bi ñun jàngkat yi la ngeen jàpp ni day wéy du wéy bis day ñëw ku ci am rendez am xam nga ban rendez-vous moo dul xam nga man maa rendez-vous mais rendez diggante nit ak suñ borom day tardé ci yàlla woo da ñëw xalaxal mawtu wal xayaatu dunya li yablukum ayukun yàlla njëkk sàkk dund tecca ni kullu man waa sax dégg man xanaa xamu ba léegi ni man jàngkat yi ñii wooy seen boobu ay sëriñ xanaa dañoo déggul ni kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikram xam nga loolu muy firi kullu man alayha faanin ca rahmaan wa yabqa wajhu rabbika zul jalaali wal ikraam lépp luy tooy dangay wow lépp luy wow danga nga fi jóg ku fi des. moom yàlla sama waati ardi. daa di tàllal nag wa samay saatul kursi bi seesub yàlla bi lépp lu am ci àdduna buñ ko tegan bi yàlla bee ko. waa dégg ñun aw fit mënta weesu yow jant bi yow ak Medoune Diouf mi mën ngeen cee xool cinq minutes te seen bët yi tojul. kon am na ci loo nga xam ne bëggoon nit di wax nay xalaat mi ay jàngkat piir tigi ñoo toog di ko dégg ñun ay sëriñ lañ ñun dañuy ñaan yàlla suñ borom di ko nangu dañuy ñaan yàlla suñ borom di ko bañ ndax ay jaam lañ lu yàlla nanguwul mooy li gën ci ñun lu mu nangu ci ñun rek mooy ni mooy li baax te ci sama mbokki sëriñ si laay tëje doomi jàmbur yi leen di jox seen alal yi gënuñu leen seen téléphone yi bari yi ñuy yor wenn taat mënta war fukki mbaam yenuwul maanaa sëriñ du star sëriñ du xogaliku ay mbagg sëriñ du nii mel sëriñ du bës ndax bës day jeex li ñuy def nii fii juróomi at ci ginnaaw na nga jàpp li ma lay wax nii dina bari ñoo nga xam ni bu ñu delluwul ginnaaw boo leen gisee di nga leen yéene ab sara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ay ci mbokk yi dégg ngeen waxtaan woo am solo wi Serigne Massila Diop waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni lépp nga ngëneel la ñu fekk soon ko fii nii doon yaatal li nga xamante ni bokk na ci diggante Sokk ak Franc waaye Ousmane Sonko ak manifestation yi fi jot a xew waaye xew ci Sénégal tamit dugg nañ ci waxtaanee nañ diggante ñaan yàlla ak ñi ko séq kon numéro téléphone u Serigne Massila mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah